الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
الله asalaamaaleykum sunu mbokki auditeurs yi fii ci sunu émission bi ñu dippee kàddu gu sell gi ñu leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam seen mbokk seen xarit seen doomu ndey pasteur Ahmed Fall moo teewaat ak yéen ci sunu programme bi sunu émission bi ñu dippee kàddu gu sell gi may ñaan yàlla sunu borom ñi nga xam ne ñi ngi déglu émission bi yàlla na doon yokkute ci ñoom di ñaan yàlla sunu borom li ñuy wax fii te nga xam ne ñi ngi ko tibbee ci téereem bu sell bi yàlla na doon yiw yàlla na doon yokkute ci bépp jëmb joo xam ne yaa ngi koy déglu mbokki auditeurs yi sunu émission bi passé émission bi wees dama waxtaan ak yéen li nga xam ne moo jëm ci jëmm ju sell jooju yonent yàlla boobu nga xam ne moo doon yuusufa ñu ubbi téere bu sell bi biibal bi ubbi kóllëre gu njëkk gi xool ci xaaj bi ñaan njalbeen ga xool ci aaya ñeent fukk ak juróom ba ci aaya ñeent fukk ak juróom benn gis li nga xam ne moom la jëmm jooju di yuusufa dund ak taxawaay bi nga xam ne taxawoon na ko ñu jàng ci ne yàlla sunu boroom mi ngi ñuy won foofu ne li nga xam ne moo am solo mooy nit ki nga xam ne nit ku laab la nit ku mën a jéggale nga nit koo xam ne da ngay baale doo fàttaliku ndaxte li nga xam ne moom lañ mën a jàng ci jëmm jooju di yuusufa moo doon nit koo xam ne ku mënoon baale la mooy nit koo xam ne dafa nangu woon ndogalu yàlla ñaar yooyu mi ngi woon ci dundam li nga xam ne dafa nekkoon nattu yàlla teg ko ko daf ko nangu yanu ko ñi nga xam ne itam ci ñoom la yàlla sunu borom jaar ngir nattu boobu dal wala boog dab yuusufa daf leen jéggal ndaxte moo doon ay magam te ba mu gisee ak ñoom nee na leen lii ngeen xam ne def ngeen ma ko du woon yéen wante kay yàlla sunu borom moo ko namoon ci sama dund jaare ko ci yéen kon bu leen am loo leen yi tiit bu leen am loo leen yi métitlu yàlla sunu borom dañuy jàngal foofu ne li am solo bu nit ñi naan dañu am mayu yuusufa du caageenu mën nga firi gént loolu amul solo li am solo mooy nga am xol bi yuusufa amoon maanaam xol bu laab xol boo xam ne dafay jéggale loo ko def mu mën la ko baal te yàlla rek a tax yuusufa nag am loo xam ne daf ko indi doon ko wone loo xam ne dafa waroon feeñ jëmmi jamono dafa am loo xam ne daf ñu ko jàngal loo xam ne yàlla moo ko ko soloon ngir jàngal ñu lu nekk ci yàlla sunu borom mi nga xam ne moo ñu sàkk yuusufa dafa am lu mu wone ci jëmm ju sell jooju nga xam ne moo waroon ñëw ngir ubbi buntu mucc buntu texe muy Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ Yeesu Christ wan ñu loo xam ne dafa nekkoon dafa nekk ci yàlla sunu boroom muy yàlla day baale yàlla day jéggale bi mu ganesee àdduna tàmbali mission bi nga xam ne moom la ko yàlla sunu boroom sasoon dafa amoon ay taalibeem fukk ak ñaar yu àndoon ak moom mu leen di jàngal di leen won di liggéey ñuy gis jëmm jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ bu ñu jàngee ci injil jàng ci xaaj bi ñu jàngleel Macë jàng ci aaya fukk ak juróom ñett saar ñaar fukk ak benn ba ñaar fukk ak ñaar foofu yàlla sunu borom mi ngi ñuy wax ne bés am na benn ci taalibe yi ki ñu doon wax Pierre ñëw laaj ko moom jëmm ju sell ji di Yeesu Kirist ab laaj mu ne ko borom bi bu ma sama mbokk tooñee ñaata yoon laa ko war a baal xanaa ba juróom ñaar yoon Yeesu tontu ne ko waxuma la ba ci juróom ñaari yoon waaye ba juróom ñaari fukki juróom ñaari yoon kon foofu mu nekk benn laaj boo xam ne laaj bu am solo la laaj bi moo doon lan mooy bu ma nit tooñee war naa ko baal wante fan la baal bi war a yem ndax baal doomu aadama ne yow baal jëmm ji nga xam ne dafa la tooñ ndax baal googu dafa war a am fu mu yem wala warul am fu mu yem Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist tontu kooku nga xam ne moo di Pierre mu ne ko booy baal nit bul am foo ko yemale donte nit kaa ngi lay tooñ ba toññar bi la yow bul jóg mukk di ko jéggal dee ko jéggal saa su nekk bu la tooñee ñaari yoon jéggal ko bu la tooñee fukki yoon jéggal ko bu demee da ba xam ne sax mi ngi def maa tey nee na ko jëmm jooju dee ko jéggal dee ko jéggal bul jóg mukk ci di ko jéggal Yeesu Kirist ci li nga xam ne liggéey na ko fii ci biir àdduna loolu mu wax taalibeem boobu doon Pierre mu dëggal ko bu ñu jàngee ci injil dañuy wax ne bés kàngamu yahud yi mës nañ ko indil ab ndaw soo xam ne dañ ko jàpp muy njaaloo te ku nekk xam li yàlla wax ci njaaloo jaarale ko ci yonentam boobu di Musaa ndaw soo xam ne am na boroom kër waxuma sax ne dañ ko jiiñ wante dañ ko fekk muy njaaloo ñu jàpp ko indi ko biñ ko indee ñu teg ko ci kanamu jëmm ju sell jooju di Yeesu Kirist ne ko waaw yow de xam nañ ne li yàlla wax danga koy wax te danga koy def waaw ndaw si nga xam ne nag dañ ko jàpp muy njaaloo lan nga ñu wax ne war nañ ko def ci moom lan mooy àtteem biñ ko waxee loolu téere bu sell bi dañuy wax ne dafa tàmbali di bind ci suuf ñu delluwaat tollamti laaj bi mu jóg na leen yéen mbooloo mi nga xam ne dëgg la jàpp ngeen soxna si mu nekk ci ñaawteef loo xam ne yàlla nee na kat koo xam ne yaa ngi koy def lii mooy sa àtte dëgg la loolu am na wante bu dee kenn ci yéen mën na yëkkati loxoom ne mësul tooñ yàlla sa boroom kooku may naa ko mu àtte ndaw si ñu ne bi mu leen waxee loolu dañu tàmbali noppi kenn waxatul ñu tàmbali mag ñi yolleeku dem ndaw yi topp ci ba kenn desatu fa ñooñu nga xam ne ñoo indi woon soxna si mu gestu ne soxna si ana ñi nga xam ne ñoo la indi woon fii di la tiiñal soxna si ne ko ah ñoom de dem nañu mu ne ko man de duma la tiiñal duma la àtte wante maa ngi lay wax benn mbir jéggal naa la demal te lu mel ni bul ko defati mu wone foofu ne ku doon jéggale la te li ko yàlla sunu boroom waxoon moom la doon def mooy lan di jéggale injil di ñu jàngal ne am na nit koo xam ne mës na ko dalal bokkoon ci ñooñu nga xam ne kàngaamu yahud yi lañu woon bi mu ko dalalee ganaleel ko nee na dafa am ndaw soo xam ne dafa ñëw ubbi buntu kër gi ñëw fekk ko moom Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist mu toog mu toog ci tànkam di fon tànk yi di jooy bi loolu amee waa ji nga xam ne moo doon Simon lañ koy wax te moo dalaloon Yeesu Kirist waa ji tàmbali di xalaat ci xelam naan ah kii de nga xam ne moom laa dalal bu dee ca dëgg-dëgg ci yàlla la jóge bu dee ci dëgg-dëgg li muy wax am na kon war na xam ne ndaw si def katu lu bon la waru ko laal sax waru ko jege ba koy laal mu gestu ne ko Simon li ngay xalaat de xam naa ko wante kii nga xam ne ñëw na def lii muy def dafay jéggalu mu ne ko ndaw si jéggal nañ la say bàkkaar demal jéggal nañ la say bàkkaar demal te ba mu nekkee ci bant bi ñu daaj ko ci bant bi moom Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ ñu ne ñaari defkatu lu bon la ñu daajoon ak moom kenn ki ci ndeyjooram kenn ki ci càmmooñam kenn ci ne ko sang bi man de gëm naa ne d'accord naa ne ànd naa ne lu bon rek laa doon def wante xam naa ne tey jii atte nañ ma maa ngi lay ñaan bu ñu demee ci bésu pénc ba wàllu ma wàllu ma mu ne ko ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax say bàkkaar baal nañ la ko te tey jii da nga tàbbi biir àjjana te moom itam Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ ñooñu nga xam ne dañ ko doon bunta xatal ba yéegal ko ci kaw bant bi daaj ko fa balaa muy delloo ruuwam yàlla sunu boroom daf ko ñaan ne ko jéggalal ñii nga xam ne ñoo ma def lii jéggal leen jéggal leen ndaxte xamuñu li ñuy def kon ñu gis ne Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ dafay jéggale te mi ngi ñuy jàngal ne yàlla sunu boroom day jéggale day baale moo tax bi ko taalibe yi ne jàngal ñu ñaan nu ñuy ñaanee fukk ak benn taalibe yooyu àndoon ak moom fukk ak ñaar yi daf na leen boole ni ñaan nii ak nii ngeen koy tàmbali te ci biir ñaan boobu mu ne leen dee leen ñaan yàlla sunu boroom ne ko yàlla sunu boroom baay bi baal ñu sunuy bàkkaar ni ñuy baalee ñi ñuy tooñ jéggal ñu sunuy bàkkaar ñi ñuy jéggalee ñi ñuy tooñ mu leen di jàngal foofu ne bu dee yaa ngi jéggale yàlla sunu boroom dana la jéggal bu dee yaa ngi baale yàlla sunu boroom dana la baal ndaxte ñaan bi mooy lan ñun ñi nga xam ne ñi ngi ñëw di la ñaan yàlla sunu boroom ñun say jaam ni ñuy jéggalante sunu biir dee ñu jéggalee noonu dee ñu baalee noonu kon mi ngi ñuy soññ foofu naan ñu dee leen baalante dee leen jéggalante mu koy wax ci téereem bu sell bi yàlla sunu boroom di ñu wax ci bataaxal bi ñu jagleel waa kolos ci aaya ñett saar fukk ak ñett nee na muñalante leen di baalante ni leen yàlla di jéggalee muñalante leen di baalante di jéggalante ni leen yàlla di jéggalee yàlla dañuy jéggal yàlla dañuy baal nee na nag man noonu ma amee yërmande ci yéen ba leen di jéggal yéen itam amee leen noonu yërmande ci seeni dëkkandoo ba di leen di jéggal ki leen tooñ dee leen ko baal dee leen am xol bu laab mel leen na yuusufa dee leen jéggale dee leen baale ndaxte kuy jéggale rek yaa ngi roy ci yàlla kuy jéggale rek yaa ngi roy ci yàlla yàlla am na loo xam ne daf ñu koy won mu nekk ci moom naan ñu nag jàng leen ci man jàng leen ci man dee leen roy ci man am na ay jukko yoo xam ne Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist wone na ko nee na jukko yooyu dee leen ko roy ci man damay jéggale dee leen jéggale te li taxoon mu dugg biir àjjana àdduna gane si àdduna moo doon lan ubbi bunt bi nga xam ne mooy buntu baal mooy buntu jéggale moom moo ubbi bunt boobu te bunt boobu mooy bunt bi nga xam ne képp ku jóg rek mën nga ci jaar jëmm joo xam ne dëgmal nga rek mën nga ci jaar bunt boobu yàlla sunu borom day jéggale kon nañuy jéggale mel ne yuusufa nga xam ne yàlla sunu borom dem na ba wax ko ci téereem bu sell bi tudd ko jox ñu ko muy royukaay te yuusufa du woon dara lu dul nit koo xam ne xol bi laaboon na da daan jéggale da daan baale du jàpp mer du fàttaliku lu ñaaw luñ ko defoon te dafa nangu woon bu baax li nga xam ne moo doon natt gu jóge ci yàlla natt gu jóge ci yàlla mën a jéggale Yeesu Kirist ne yàlla baalal ñii nga xam ne sax ñi ngi may def lu métti ñi ngi may naqaral man mi nekk ci dëgg ñu tooñ ma maa ngi lay ñaan nang leen jéggal nang leen baal kon mbokki auditeurs yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaareelu xaaj bi ñuy tëjee sunu waxtaanu tey
حالي في ظل حالي أيام ليالي عايش في بالي عمرك يا غالي في ظل حالي حبيت حبيت اللي يستاهل على يسوع أنا من نازل حبيت حبيت اللي يستاهل على يسوع أنا من نازل حبك نور قلبي عطى نغمة لحياتي بالي مليون هاني الفرحة تعمر بيتي حبك نور قلبي عطى نغمة لحياتي بالي مليون هاني الفرحة تعمر بيتي بالي مليون هاني الفرحة تعمر بيتي أيام وليالي عايش ملالي دوبك يا غالي من الحال أيام وليالي عايش ملالي دوبك يا غالي تبدل حالي حبيت حبيت اللي يستاهل على يسوع أنا من نازل حبيت حبيت اللي يستاهل على يسوع أنا من نازل حبك نور قلبي يعطى نغمة لحياتي بني من يوم هاني الفرحة تعمر بيتي حبك نور قلبي يعطى نغمة لحياتي بني من يوم هاني الفرحة تعمر بيتي بني من يوم هاني الفرحة تعمر بيتي
mbokki auditeurs yi kon loolu nga xam ne jukko jooju nga xam ne nekkoon na ci Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ jukko jooju nga xam ne feeñoon na ci yonent yàlla Yuusufa yàlla na ko yàlla sunu borom def ci ñun yàlla nañu ko sol Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mi ngi nettali bi ko taalibeem boobu di Pierre laajee laaj boobu ne ko ku ma tooñ ñaata yoon laa lay jéggal nee na am na jaraaf joo xam ne da doon tukki am loo xam ne daf ko lebaloon ay dagam bi mu dellu see mu ne leen kaay leen ngeen fay ma bor bi nga xam ne moom ngeen ma ameel bi ñu ñëwee joytu mu ne leen bor boobu ngeen xam ne amal ngeen ma ko te mënu leen ma ko fay jéggal naa leen ko nee na bi mu toogee tuuti jaraaf boobu dégg na kenn ci dagam bi nga xam ne amaloon na ko lu bari te mu jéggal ko waajooju kat dem na ci beneen miskin goo xam ne da ko amee lu tuuti mu ne ko boo ma fayul danaa la yóbbu fa mbaxane doone benn sonal waa ji ba waa ji mujj am jël li muy dese woon tuuti li mu dese woon fay ko bi ko jaraaf bi déggee mu ne woo leen ma sama dag boobu ma wax ak moom bi mu ñëwee mu ne ko monte de yow danga ma amee lu bari ma jéggal la ko miskin bi amee lu tuuti nga taxaw ci kanamam xot-xotal ko sonal ko ba nga xam ne lu tuuti li mu dese woon jox na la ko mu ne ko nag maa ngi lay wax ne yow loolu ma la jéggaloon du ma la bàyyi donte fayuloo ma ko ba mu jeex tàkk mu doon léeb boo xam ne Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist daf ko léeb ngir dëggal gën a dëggal wala boo gën a leeral loolu nga xam ne wax na ko Pierre nee na jaraaf jooju boo ko xoolee dafay mel ne yàlla sunu boroom nee na yàlla sunu boroom ameel nañ ko lu bari mu baal ñu ko tooñ nañ ko lu bari mu baal ñu ko dañ koy tooñ saa su nekk mu ñuy baal du jóg te di ñu jéggal nee na nag bu dee ñun yàlla sunu borom mi ngi ñuy jéggal waaw ngalla kay ñun war nañ di jéggal ñeneen ñi nga xam ne itam dañu tooñ nee na jaraaf bi dafa meroon mu ñuy jàngal foofu ne ki nga xam ne du jéggale kooku kat mi ngi merloo yàlla bu dee bëgg nga merloo yàlla sa borom mi la sàkk del bañ a jéggale ndaxte yàlla ngi lay jéggal saa su nekk bu doon yàlla mi ngi fayantoog ñun kon ngala ñun wante saa su nekk ñu nekk ci lu ñaaw mu jéggal ñu saa yu ñu tuubee mu baal ñu saa yu ñu jéggaloo mu jéggal ñu saa yuñ ko tooñee mu jéggal ñu du fayantoog ñun wante jëmm ji nga xam ne nag fàtte na loolu te loo ko def mu fayante ko ak yow yàlla sunu borom nee na jëmb jooju kat mi ngi may merloo te loolu la ñu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist jàngal bu ñu jàngee ci téere bu sell bi jàng ci xaaj bi nga xam ne moom la ñu jagleel yahud te mu nekk ci kóllëre gu bees gi tubaab daan ko Nouveau Testament mi ngi wax foofu ci yahud ci aaya fukk ak ñaar ak saar fukk ak juróom nee na bul bàyyi dara loo xam ne lu ñaaw la mu dellu siwaat ci yow nekk ci sa xol ba xañ la li nga xam ne mooy ngëneel jóge ci yàlla sa borom lu ñaaw lool nag mooy doo wax mooy lan mooy jëmm ji nga xam ne day bañ a jéggale nee na bañ a jéggale day indi mer day indi soxor te loolu day doon loo xam ne daf lay xañ lu baax wala boog yiw bi nga xam ne mi ngi jóge ci yàlla sa borom waroon wàcc ci sa kaw nee na xol bi nga xam ne xat na xat na ba nga xam ne du jéggale nee na xol boobu mi ngi xañ boppam yiwu yàlla moo tax nee na bu ñu bàyyi yooyu di ñu dab ba ñuy xañ sunu bopp yiwu yàlla nee na nañuy dàq ci ñun xol bu xat nañuy yaatu nañuy laab nañuy mën a jéggale nee na bu boobaa yiwu yàlla dana wàcc ci sunu kaw yàlla sunu boroom dafa ñu jox ay misaal yu bari ngir won ñu ni mu ñuy jéggalee yàlla sunu boroom musoon na wax ak benn ci ay yonentam ni mu tegee woon yuusufa nattu ba pare jàngal ñu ci yuusufa ni mu laabee woon mën a jéggale noonu la yëkkatee beneen yonentam boo xam ne mi ngi tudd Osée Osée nag li nga xam ne dund na ko ñi ngi koy fekk ci kóllëre gu yàgg gi ñuy wax ancien testament Osée yàlla sunu boroom dafa ne ko jógal def naa la yonent wante lii laa la sas demal nga fekk jigéen su bon jigéen soo xam ne day jaay boppam saa su nekk nga bëgg ko def ko soxna Osée dem fekk jigéen goo xam ne jigéen bu yàqu la woon bu doon jaay boppam la saa su nekk muy jaay boppam mu jël ko def ko soxna yàlla sunu boroom ne ko jigéen gii nga xam ne nag def nga ko soxna bëgg ko dee ko yërëm saa yu génnee sonn daw ñëwaat ci yow jéggal ko baal ko muñal ko Osée dëkk noonu ak soxna si yàlla sunu boroom dañu nettali ci téereem bu sell bi ne soxna si da daan génn def lu ko neex bu sonnee delluwaat ci kër gi bu ñëwee lekk ba naan ba melaat ni mu waroon mel delluwaat mësu ko dóor mësu ko dàq ñépp yëg li nga xam ne mi ngi koy dund moom mu boole ci laab mu boole ci yërmande di ko jéggal di ko jéggal saa su nekk yàlla sunu borom wax foofu ne dama leen jox benn misaal mu ne ñu yéen noonu ngeen mel ak man ndaxte saa su nekk yéen a may dëddu nekk ci la leen neex te xam ngeen ne man maa leen sàkk wante taxul saa yoo leen sonnee ba daw ñëw ci man ma dalal leen baal leen uuf leen yàlla sunu borom ne bàyyi ngeen ma dem ci xërëm bàyyi ngeen ma topp seen bakkan bàyyi ngeen ma def la leen neex te xam ngeen li ma leen digal xam ngeen fi ma bëgg ngeen dem xam ngeen li ma neex ak li ma neexul wante ñi ngeen ne yéen a ngi nekk saa su nekk ci li ma neexul wante teewul saa yoo leen ñëwee ma baal leen yéen a ngi mel ne ñuy jaay seen bopp wante teewul saa yoo leen ñëwee ma dalal leen faj leen uuf leen jox leen ba ngeen mel ni ngeen war a mel du ma tàyyi mukk ci jéggal leen yàlla sunu borom dañuy jàngal foofu ne mi ngi ñuy muñal kon nañuy muñalante Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ ne dee leen muñalante moom nag yàlla da ko jëmmal mu ñëw won ñu lan mooy muñal ndaxte buñ nee muñal buñ nee jéggale moo doon Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ yàlla sunu borom ne danaa ko def muy bunt bi nga xam ne mooy buntu texe mooy buntu mucc wante texe googu ak mucc googu mooy lan du tekki dara dudul yàlla sunu borom mi ngi ñuy jéggal ku jéggalu mu jéggal la ku tuub say bàkkaar mu baal la moo tax mu jël jëmm jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ def ko sarax ñu daaj ko ci bant bi deretam tuuru ngir mu far sunuy bàkkaar yàlla sunu borom ne képp koo xam ne daw nga làqatu ci deret jooju làqatu ci jëmm jooju jéggal naa la say bàkkaar danaa la taf ci sama bopp te bërëb yu sell yooyu nga xam ne defar naa ko danaa la fa dalal nga nekk fa ba faw Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mooy kiy jéggale Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mooy buntu jéggale mooy buntu baal yàlla nee na danaa leen baal wante jëmm jooju moom mooy bunt bi kooku ma wàccee ci biir àdduna kooku nga xam ne jëmmal naa ko mu ñëw nekk ci seen biir liggéey li mu liggéey tëjee ko nag sarax soosu mu def ci bant bi nee na ci jëmm jooju laay jaar di leen jéggal di leen baal saa su nekk boo leen làqatoo ci moom ma baal leen boo leen dawee ci moom ma uuf leen jéggal leen jëmm jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ loolu nga xam ne Yuusufa dundoon na ko Osé dundoon na ko dafa nekkoon rek misaal goo xam ne ki ko doon fésal ki ko doon lawal ci biir àdduna du kenn ku dul Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ te du dara lu dul yàlla sunu borom dañuy jéggal yàlla sunu borom dañuy baal yàlla sunu borom nee na ku tuub ma baal la yàlla sunu borom nee na ku tuub ma baal la wante ma baal la ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ kon yàlla nañu yàlla may xol gu laab yàlla nañu yàlla sol jukko yooyu nga xam ne mi ngi woon ci jëmm yooyu di Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ nekkoon ci Yuusufa nekkoon ci Osé mooy lan di jéggale yàlla sunu borom nag dañuy jéggal kon dañuy jéggalante sunu biir yàlla sunu borom dañuy laabiral kon nañuy laabirante sunu biir yàlla sunu borom dañuy baal kon nañuy baalante kon fii ci biir Sénégal ñun ñi nga xam ne ñooy askanu Sénégal yàlla nañ ñu xamee askan goo xam ne dañuy laabirante sunu biir dañuy jéggalante sunu biir dañuy muñalante sunu biir loolu nag dana yomb ci ñun bu ñu jébbalee sunu dund jëmm ju sell jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ nee na maay soppi xol yi nee na boo ñëwee ci man dama lay def nit ku bees sol jukko yu bees jukko yooyu nga xam ne moom la yàlla sunu borom bëgg moom la naw te jukko yooyu jëmm joo xam ne fekk nañ ko ci yow jikko jëmm jooju texe nga yal na leen yàlla sunu borom barkeel ci darajay Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ yal na yàlla sunu borom barkeel askanu Sénégal yal na barkeel sunu réew mi yal na barkeel képp koo xam ne yaa ngi yeewoo fii ci darajay Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ boo leen bëggee nag am téere bu sell boobu di biibal bi nga xam ne ci la ñu laloon sunu waxtaan wi mën ngeen ma woo ci 77 074 35 35 wasalaam.
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35